አኤፍቴ ቲቪ ምንድን ነው? ህክመቱል ኡም ህክመቱል ኡም እክሰን ሳሊስ አኤፍቴ ቲቪ ምንድን ነው? ህክመቱል ኡም أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadi wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan minhu luqad wachalhu dakiran wa shakiran abad wachal kalaami rachidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida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 ngir liggéeyee li yonent bi ba ñun jaam ñi ñun ñëpp ñu mën a jariñu àdduna ak alaaxira muy bis buñ doon waajal daaw ba ren yàlla def nu agsi ci jàmm ak ngëneelam ak tawfiixam ak suturaam ñu ko ci sant bu baax ndax Sëriñ Tuubaa kat lim ci jublu woon mooy sant yàlla oo képp koo xam ne ni mbegam sa mbeg la nga di ko ci santale sun borom te cant gépp dafay dellu siwaat ci noonu sant nag day baat bu am solo di ndigalul sun borom tabaraka wa taala sun borom wax ci alquran ne washkuru lii wala takfurun yéen jaam ñi sant leen ma te bu leen ma weddi saa bu tuddee baatu cant ci alquran nag dafay sësale baatu weddi mu mel ni nit ki saa bu santut rek na jàpp ne kon mi ngi jëm ci weddi yàlla yal na ci yàlla musal moo tax sant yàlla jafe iblis bi muy defee sun borom ci bim ko alage ci bi mu waxee sujjootal leen aadama te iblis bañ Euh, Iblis dane ko kii nga xam ne nii moo tax ma alku dana galanu ci sa yoonu yërmande ba ay satam duñ jàll ñoom ñëpp danaa leen yóbbu ca safaan ba danaa leen dikke ci seen ndeyjoor ak seen càmmoñ seen gannaaw ak seen kanam bali ëpp ci ñoom daal duñ la sant wala tajidu aktharuhum shakirin kon objectif am mooy nit ñi bañ sant yàlla Sëñ Tuubaa objectif am mooy nit ñi sant yàlla dem àjjana Iblis objectif am mooy nit ñi weddi yàlla dem safara moo tax kon cant gi ci ñun lay dellusiwaat moo tax mu jafe la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid saa bu suñu borom tuddee sant rek dafay teg ak weddi moo tax am na ñaar ñoo ñëw ci Sëriñ Tuubaa di nuyoog moom ca njàngaleem mu rëy ma kenn ki mu ne na nga def mu ne ko maa ngi sant rek Mbàkke ki ci des mu ne ko na def mu ne ko ah moom da xanaa jamono ju metti ñuy muñ rek muy jël di jox kii sant rek bu ne ko na def mu ne ko maa ngi sant rek mu koy jox rek ki ci des mu ne ko na def mu ne ko ah muñ rek jamono ji dafa mu waaye nag muñ rek mu jigi nag waa ji muñ ne ko nag sëñ bi de yii boo ma ci joxoon man it ma jël mu ne ko déedéet muñal koy sant la ñuy dolli <laughs> waaye Sëriñ Tuubaa moom maqaamam weesu na sax muy gis Mm, xewal rek di sant waaye àgg na ci bu gisee nattu yitam dafay sant moo tax bis bi dafa daan def saa bu ñëwee suñu borom day ful nattu yi ba eh, at moom yi nga xam ne nag ci la wootee cant gi bi mu agsee muy waajal nattu yi suñu borom ne ko nag nattu yi jeex na nag léegi fay rek ci des ci la wootee nag di ko sant ne nañ ko ci santale moom sun moom moo tax am xéewal ak am nattu lépp daf ci daan sant yaa rabbi in aataytani fa shukru wa in manaqta faridan wa sabru boo ma joxee ma sant waaye boo ma xañee it wala nga teg may natt ma sant ba tey sant nag xol da koy def ak làmmiñ ak i cër moo tax sëñ Tuubaa ne xaqi xaqiqatu shukri la daa man alima shuhuduna min zil jalali niama dëgg-dëgg sant daal mooy ñu seede xéewali yàlla yi nga xam ne nii yàlla defal nañu ko ñu ko ci sant ci sunu xol waaye nag ak jëfit wa amalun biha lisaanan wa janaan fi kulli ma yorba wa rukunun yustabaan moo tax Serigne Salih radiyallahu anhu daana wax ne dee leen sant yàlla te ci boole alhamdulilah <laughs> Serigne bi nag bi mu wootee cant gi 1921 teewee na ko juróom-benni at rek daal di ñibbi si Touba Cheikh Moussa njëkk a wuutu def na ko moom itamit juróom at ba 1945. Cheikh Mamadou Fadal nag bi mu bi mu doonee jëmmi Serigne Touba ci la ko wootee Touba daal di wax ne defee ko fu ne day baax na waaye nag defee si ko fi moom moo gën a sakkan te it wax na dëgg ndax boo moo gën a sakkan ci wàllu impact bi bi muy def ci wàllu social ci wàllu économie mbokk yi gisante ak lu bari loo xam ne ni moom kenn mënu ko takk sax ci ay njëriñ yàlla ñu ko yàlla fayal moom it. moo tax ba mu ko wootee Serigne Moussa ko di ko wootele di wax ne yéen gaa yi Bamba déglu leen Moussa murid bi woon na leen ndaw ak mag góor ak jigéen nañu wuy ji Ahmadul Mbakki murit ci màggal sëriñam lay xamee léppi ngërëmam ba mujj jékki fa këram di nuru Ahmadul mbaki fa may yuazim xurumaat yàllaa ko wax lii du poraat leerug sëriñ bi day royaat ca leeri Ahmadul Mbakki bi qadri ijlaali shuyuux la Bamba wax ba ñëpp cheikh ku màggalu sëriñ ba feex doo seeru ahmadul makki sëriñ Tuubaa moo ne kenn ni nga màggalee sab sëriñ ni ngay texee ne la sa barke yi di toll ak say may bi qadri ijlaalika cheikhaka tafuus bi ma turidu wa bihil yumna taxus kon nag sant yàlla nañ ko def bu baax a baax a baax a baax ndax lépp sunu njariñ moo ci ñëwaat sëñ Musaa Ka daal jàll nag ne ca la demoon ca jay so si noonam yenaa ru si mu del si xaama kaso si nan fekki ahmadul mbakki bu ñëwatee na ñëpp teew di tudd yàlla defi géew guddeeg bëccëg bu kenn goow nañ tagg a ahmadul mbakki jësbul xuluub waxi mawaahibu ki miimiyaat ñu jox ko gaa yi neexi baat ñu tagg ahmadul mbakki kon loolu mooy ci gi waaye nag ganaaw léegi gan ñi agsi nañu ci jàmm léegi waa dëkk bi la ñuy waxal waa Touba ñoom nan lañ mën a lañ war a taxawoo gan ñi loolu it Serigne Touba jàngale na ko ci nax ju xodo ay xaaji di wax ne ah yow mi nga xam ne ni da am gan kat na nga teral gan gi mm, ci yaatal ko maanaam wa akrimil adyafa bi tarhibi wa bil xira wal bushra wa taqribi boo amee gan nang ko yaatal lool maanaam na nga ko ëffal li nga koy ëffal moom mooy lal bi nga koy dalal ak taraanga ji nga koy andil bu ko wan ko soxla naa ko dama la ko jox nii kat waaye ñu ko soxlaa ngi fi da nga ko koy jox mu bari lool ci bëttam ba noppi nga wan ko ne ko nag kenn soxlawu ko yow rek yako moom noonu la ñuy teralee gan gan gi it da koy des stress maanaam da ngay fexe ba stress bi mu àndaale mu dañ ndax tukki yonent bi neen daggitu mbugal la léeg-léeg ñu dajeeg suñ mbokki apprenti yi ñu wax leen lu leen naqari ak it coono bi rek coono tukki rek mm, client yi xuloo ci yoon wa ku ne mer rek ndax coono tukki ku ne defaree sa morom la ko teg. nee na loolu bu ñëwee dangay ngay fexe ba stress boobu nga gaaw dindi ko di ko waxal muy ree ak yooyu yëpp dafa baax na gan gi da nga koy jege bu ko déposé fenn ba noppi dem ne meng lu yàgg day mujj jaaxle defe ne lim daal ci yow mm, dala neexut loolu it nee na bu ko def ba tey it nee na sa bu ci xatal gan ndax diir bu gàtt mu dem gan moom balaa dee ñibbi bala laa rey ñibbi laa tastadix li dayfi min kalkalkalu fa innahu xammaa xaribin yarxalu nee na it yonent bi it na nga xam ne mooy wax ne képp ku gëm yàlla ak bis penc bu gan na ko teral loolu it xadis bu wér a wér nee na am na it woykat bu woy ci téer bu ñuy wax Bahrul Kaamil di wax ne gan na ko teral te nga na nga xam ne fanaan ma muy fanaan si ak fan yam fay def loolu ay droit am la te it loo ko ci xañ bu àggee seen kër dana ko nettali donte laajuñ ko ko sax dana xibaar waa seen waa kër na nga ko terale ak ak gan ga lu ca yàqu rek dana ko wax lu ca neex dana ko wax waaye lu ca naqari it dana ko wax nee na bu gan di ñëw gaawal génn ci mbedd ma gàttandu ko bu nekk ba gan gi agsi nga taxaw di ko xaar fi nga toog day tayal day def na dalaa safut da ngay jóg gàttandu ko ànd ak reetaan ak kan ak xar kanam bu feccee ko bu ko defee xelam day daal di dal donte fa koy dalal sax yaatuwut wala am na gan ñu fa ñëwoon barki démb ak nangam waaye ree gi nga koy ree ak yaatal gi loolu day tax xelam dal te it nee na yaatal googu nga ko yaatal ak ree googu nga ko ree nee na moo ko gënal sax taraanga waaw bashashatu wasal mar xayru minal xira fa kayfa bi may ati bihi wax daiku mu wax ne am na keneen ko waxaat ne man sama gan sax balaa wàcc ci oto bi rek wala seret bi bala wàcc rek laa koy tàmbalee ree mu fàtte coono ba lépp daal di yàkkamtee wàcc daal ne ah fi ma jëm si nar naa neex kii ma wàcc gu ma sax ak am ju neex ji udaaxi ko day fii qabla inzali rahlihi wa yaxsibu indi wal mahallu jadibu nee na bu ganuk jàmbur taaree ba ñëw sa kërit wala mu jaawale bu ko gaaw wax ne ko xanaa du kër diw sàngam nga jëm mi ngi fii de soriwul xaaral ma wax gone yi ñu yóbbu la déedéet nee na fexeel ba coonom bu njëkk nga teggil ko ko ne ko kër diw sàngam de soriwul waaye nag mm, toogal ba añ xaar ma defaral la nga sangu tegal fii de moo këram benn la nga xam ne coono bu njëkk danga ko koy teggil ba mu teggeeku nga dog koo boole gone yu ko yóbbu nee na noonu la ñuy def sëñ Tuubaa moo koy jàngale ci nax ju mu ne am na keneen koy wax ne ah ñun de suñ kër moom yaatu na ci ñëpp gan gi ak si quatre heures du matin guddeeg jógee Tamba wala ki jógee Dakar ak ak gan gi ak si ci suma ñoo yem ci man bu ñëwee lu ma sonn sonn nag lu ma gëmmeentu gëmmeentu damay fexe ba duñ ko xam mooy fexe ba duñ xam sama gëmmentu ak sama coonoog sama yooyu yëpp dama koy nëbbu don ku bees teq mel ni koo xam ne daal man awuma benn problème waaye boo ko wanee ne ko nag man de ci gan ñi laa yendu dem ba tey maa ngi ci gan ñi damaa sonn damaa gëmmentu nee na loolu day découragé gan sëñ Tuubaa nee na loolu bu ko kenn moo tax mu ne suñ kër moom gan gu fa agsi guddi ñi fa agsi woon ci suba yéen a yem waaw lépp lu lu lu lu droit yi waa kër gi am yëpp am ngeen ko waaw kon nag noonu yi la ñuy teralee gan na ñu war cee sonn bu baax it te it cant gi kat sëñ Tuubaa nee na xéewal yu ko sun borom defal la mu xam ne ëpp na ko moo tax mu yéene ci ñépp bëggut kenn waat ko moo tax mu ne day képp koo xam ne nii day bisu màggal gi fonkal nga ma ko la ma jëlee ci sama tukki ba du lu ump tey ëllëg te it nee na ñaar ñu dend kenn ki fonk ko ki ci des doyadal ko ki ko fonk du du jóg mukk di gis li muy tanee ak li muy sutee kii ko doya dal kon lu mat a fonk la moo tax mu ne suñu borom may na ma ci xéewal yoo xam ne nii wala fay na ma ci fay goo xam ne nii nam toll la ma fayee ni ma toll laa ko liggéeyale waaye moom nam toll la ma fayee te suñu borom moom <laughs> te it nee na suñu borom ba ma koy liggéeyal naxuma ko waaye ba may fay it naxuma moo tax mu ne maddal yel baaxil jaza bi xadrihi minhu wa min rasulihi bi xadrihi moo tax mu ne am na mag mu baax mu wax ne yàlla de loo dof dof du nax waaye loo yeewo yeewoo doo ko nax moo tax daraan wax ne bari pexe de saf yàlla ko gën kenn si magi sëñ Tuubaa moo ko daan wax muy sëriñ Malick Bassine si moo tax nag sëñ Tuubaa daal ne am naa ci ci ay may ak hadiye yu yàlla jox ak yonent bi yoo xam ne nii kat laqee naa ci ngën ji may yoo xam ne ku ànd ak man doo tumuranke àdduna alaaxira hadiyati min al ilaahi war rasul tawajjahat liya wa niltu xayra suul di wax ne ay may wut si na ma de yoo xam ne nii du jeexati mukk ak i ngërëm yoo xam ne nii lépp lu bëgg àdduna ak àllaaxira mi ngi fi man tawajjahat liyal muna bilantiha wa birrida yusaaqu li ma yushtaha di wax ne jihaat ji ma doon jihaat de suñu borom nangu na ko ba defal na ma ci yool boo xam ne nii ñëpp xaj nañ ci min al ilahi wa rasuli aqbala xayru salaabin min jihadin qubila di yaale naa jeeg sama borom nag ca fa weddikat ya ndeey loo xam ne ni mujj naa ca doone eh, mbégum képp kuy sant naajaan yal waaxidu indal jaahidin bi anna ni surtout surur alxamidin lim ci wax lépp kenn mënu ko kenn mënu koo waxandoo ci ay xéewal ak i moo tax képp ku yàlla xiir nga bokk ci ñi ko ciy santale yàlla war ngaa sant te xam ne du sa ngóor yàlla moo la ko tawfiixale kon nag yal nañu yàlla defal ñu màggal ko ay màggal yu bare bare bare bare bare te ànd ak wér ak gudd fan ak jàmm ak sutura ak taraanga ak ndam ak ngërëmul sëriñ Tuuba ak xaalis bu bare bare nag te ànd ak njub waaw te ñu yàgg ko def rek kon nag ñoo ngi leen di siyaare ci bisbi bi fu fi waay toll rek murit bu nekk biir Touba ak bu nekk ci biti tuuba di ko màggalit yaa ngi rek ñoo ngi lay siyaare bu baax